abonnez-vous sur sunu chaîne FTTV Sénégal la chaîne des patriotes Ça, c'est ne ngeen di am ay xibaar. c'est ak jàmm seen seen Sénégal kii di Gabriel Kane ginnaaw bu ci di Sénégal di def ay don, di dem ci sëriñ di fa maye xaalis di dem ci soirée Wally di fa maye xaalis. kookee di Gabriel Kane démb lañ ko dal di bule dakh génnee ci appartement bam ci lu sabab ñu daal di génne kii di Gabriel Kane foofee mooy que ne kii di Gabriel Kane kër gam nekk biir Mermoz kër googee du këram dafa luye kër googee nga xam ne ne kii di Abdou Karim Dia ak kii di Nafisatou Dia ñoom ñoo ko bokk moom kii di Gabriel Kane depuis mois de mai bu ñu génn fayul location ci kër googee si lim ko fay location boobee nag kii di Abdou Karim Dia daa yóbbu woon kii di Gabriel Kane ci kanamu yoon ginnaaw bañ àggee ci kanamu yoon nag ndogal lu fa bàyyeekoo mooy ko ne kii di Gabriel Kane na daal di génn ci kër googee mu daal di luye ca biir Mermoz ginnaaw bu yoon jëlee ndogal loolee boole woon na ko benn acte d'expulsion bu mu jébbaloo na huissier bi ñuy ooyee ci turu kii di Jean-Félix Coly ngir kookee daal di koy jël daal di koy jébbale kii di Gabriel Kane kii di Jean-Félix Coly ginnaaw ba mu xoolee kii di Gabriel kan ba sonn mënu koo gis jëloon na acte d'expulsion boobee daal di koy jébbal maire ba ca Mermoz kookee tamit ngir sàmmonteeg lu ko yoon wax ci réew mi di Sénégal jëloon na acte expulsion boobee daal di koy taf fépp ci biir quartier ba ca Mermoz ngir kii di Gabriel Kane daal di koy mën a gis daal di xam ne dàq nañ ko ci kër googee mu daal di nekk ci biir Mermoz kon ci waxtu bu ñuy wax nii kii di Gabriel Kane daal di nañ koy dàq ci kër gëm lee woon ca Mermoz te ci li ni mel mu si doon fay 600000 le chaque mois kër googee daal di nañ ko ciy génnee abonnez-vous sur notre chaîne FTTV Sénégal la chaîne des patriotes Ça, se ne et